Euh, dund bi moom euh, nekk na jàmbat ci askan bi donc bépp mesure boo xamante ne état da ko jël pour soulager euh, population bi dañ koy dañ koy saluer ndax attente la population bi te dañoo soxla fu mu ne nii vraiment benn ouf de de soulagement. Mm-hmm. mais xam nga dund moom dëgg la dund gi même boo ko wàññee lii gën a grever ménage yi moom mooy souvent les yi Mm-hmm. donc tant que euh, laaloo location bi quel que soit euh, liggéey bi nga xamante ne def nga ko ci wàllum euh, bes si ay danre daanaka impact bi duñ duñ duñ duñ ko yëg comme ni mu comme ni mu waree. Mm-hmm. mais gouvernement bi def na ay jéego donte xam nañ ni c'est pas facile. Mm-hmm. Euh, c'est pas facile te man sama gëm-gëm moom mooy du solution bu viable ndax boo xoolee depuis ba ñuy soutenir Euh, population bi ci wàllum euh, denrée yi sa devient toujours euh, dafa nekk récurrent te war nañu mën a dépasser loolu damay faral di wax ni 2008 mhm. ñu ngi amoon fii la crise du ba nit ñi doon wër pour jënd ceeb donc depuis boobu la ñu waroon am benn détermination bu farouche pour régler de façon définitive problème denrée yi en tout cas denrée yi nga xamante ne moom moo ci gën a essentiel yu ci mel ni ceeb mhm.